asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi comme niñ ko baaxoo di defee jamono ju nekk rek di doxantu ci réew mi di xool li fi baax ñu koy wane rawatina nag gone yu ndaw yi nga xam ni mokkal nañ alquraanul karim tey nag ñi ngi fii ci Touba Mbàkke Touba nag ku ko wax wax dëkkub alquraan tey nag xale bu jigéen bi ñu fiy seet si amagul sax 9 ans yàlla dimbali ko mu mokkal alquraan mokkal gu yéeme kon tey nag ñu leen ànd ak moom ñu xool ndaka lay yendoo ci këram bismillah xale bobu ngeen di gis ci photo bi mom lañuy wax soxna bintu gay muy ko xamni yalla daf ko dimbali mu teel a mokkal alquranul karim tamatalagul sax juróom ñenti at gis nga ko nonu soko ko gisee sax da ngay japp ni dafa wara dali alquran ta wallahi mokal na alquran rumba diplôme bi mu may wan moy firnel ni mokal na alxuraanul karim fi mu don jange ñoko ko jox sérel ko ni mokal nga alxuraanul karim te di ngeen gis ci vidéo bi ni ku mën alxuraan la gis nga nonu date bi 2015 lañ ci def kon matalagul sax 9 ans kon Sénégal nañ ni alhamdulilahi rabbil alamin soxna bintu mi yemul sax ci mokkal alxuraanul karim waaye daf koo mën a tajwid tajwid gu leer diglu leen ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى nonu tamit la ko ay wajuram yare ci julli ndaka la deg noddu sunu borom gi rek daal gawantu tek tere bi jël satalam fasiyene jappu ngir taxawal waxtu boromam kon alquran lo rek lay jeriñ nit moy boko jange ba nopi nak dañ lay yar yarub diine bali alquran wax nga koy jëfé nak yalla dani aqimus salaah macha allah ba mu jàppee ba noppi nag mu nga noonu di julli waxtu boroomam bi mbokk yi alxuraan lii rek lay jëriñ ci nit nit bu ko jàngee ba noppi nag lam ca digle dañ ko war a jëfe te loolu nag waajur yi ñoo ci war a jàpp kon bul ne sama doom mokkal na alxuraan rek yem naa foofu déedéet da ngay noppi nag jàngal ko ay farataam moo xam nu muy jaamoo boroomam te it nga koy soññ ci nafar donte ne sax day dem daara ju la jege di fa tari kon soxna Bintu mi noonu julli na ba noppi toog nag di ñaan boroomam kon leen amin macha allah soxna bintu ñepp xam nañ ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallam dani ñaan moy gànnaayub julit yalla daan ni ñaan leen mama may leen kon mom julli wu rek dem waye dafa tok di ñaan boromam amin a'udzu billahi minash shaitanir rajim alladheena ja'alul qur'ana القرآن fa rabbika lanas'alannahum ajma'in المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ya'tiyakal yaqin Sadaqallahu azim Baca bismillah A'udzubillahi minasyaitonirrajim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 إن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأنكروا والله عليم حكيم إن الذين آمنوا قال في إن لا إن الذين يوفي اوكي اتي في لو يا الذين آمنوا lan mooy seen différence bii inna allazina bii allazina gannaaw ba ñu waxtaanee man ak moom ci yenn runge yi gis ngeen ko nonu mi ngi yor xasida ak Serigne Touba guñ nan tazawudu sigar nga xani moy yobul ndaw yi di ko ngir xam ay farataam macha allah kon mbok yi jere ngeen def loolu lañ leen jëlaloon fi tay ci Touba ànd ko ak soxna Bintu noonu tamit la ñaaxee waajur yépp ñu jël seen doom yi yóbbu ca daara ja ñu jàngi alxuraanul karim ndax alxuraan mooy tey mooy ëllëg waaye bu ko mokkalee nag bul toog rek ni sama doom mokkal na waaye danga ko cay toppal nag maanaam muy nafar jamono ju nekk donte ni sax day am daara ju ko jige mu nga yóbbu ko fa mu fay nafaree di fa tari ay isib bis bu nekk bul ca yem ak moom na nga ko jàngal tamit diineem ba mu xam nu muy jaamoo boroomam xam lan mooy farataam ak lan mooy sunnaam te koy soññ ci ak jaamu yàlla kon képp ku seetaan vidéo ba mu jeex te mu neex la na nga ko zeme te nga ko te nga abonné chaîne bi jërë ngeen jëf